Euh, François Cherpion, directeur général euh, de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès euh, du groupe Tolsa. Cherpion s'écrit e i On est, tous ici, la famille, Tolsa, heureux d'accueillir les, les, différents acteurs de cette jolie journée euh, dans ce qui est donc notre mine d'Aloucagne et où aujourd'hui on va procéder à un reboisement en compagnie des, des eaux et forêts. Et je voudrais d'abord remercier le chef de service régional des mines en la présence de son, son chef, M. Lamine Diouf, qui est avec nous et qui nous accompagne, euh, comme lors des Journées de la Terre ou la visite de la ministre, et qui est un, fidèle euh, soutien de l'activité euh, des entreprises au, Sénégal. Je voudrais aussi remercier euh, tout particulièrement les eaux et forêts qui sont venus avec non seulement un bataillon, on pourrait dire un régiment, commandé par les plus grands cadres de la, région, et au premier lieu desquels, bien le, le, le, le Et c'est un vrai plaisir de les avoir parce qu'il faut magnifier la, la capacité ces cinq dernières années de travailler avec eux pour le bien en fait de la, de la forêt classée de, dans laquelle, de Thiès, dans laquelle nous, nous sommes aujourd'hui ici, à, à, à Loucagne. C'est une forêt qui est riche, qui a une forte bio, biodiversité et dans laquelle, de laquelle des gens vivent et de laquelle les gens dépendent. Le partenariat qu'on a fait avec les eaux et forêts, c'est un partenariat qui est exemplaire, qui vise L'important, ce n'est pas l'exploitation, l'important, c'est la post-exploitation. Et dans ce cadre-là, on doit avoir affaire à des professionnels. Et qui mieux pour la gestion des ressources que les gens qui ont cette prérogative donnée par l'État de nous aider à, suivre euh, ça. Alors ça fait depuis des années. Et l'objectif, c'est de planter plusieurs milliers d'arbres et à chaque fois de réhabiliter. les sites, réhabiliter aussi l'extérieur de manière à donner aussi une, une, image au niveau de la route qui est plus verte. Euh, Un, un, homme politique disait euh, notre maison brûle et nous, au niveau de la société, nous ne voulons pas que cette maison brûle et nous voulons au contraire faire en sorte qu'elle se développe. Et on a la chance aujourd'hui, grâce à l'équipe des eaux et forêts d'une part, qui est venue avec des, des, jeunes qui sont là pour mettre la main, non pas la main à la pâte, mais la main à la pelle. Euh, nous avons aussi la, la chance d'avoir euh, essayé de réaliser Euh, une autre partie de, de ce programme-là, grâce à l'aide du, du, Rotary Club Alizé et du Rotaract euh, Dakar Espoir, euh, le, des présidents du, Rotary avait décidé de faire un arbre par personne, un rotarien, un arbre. L'objectif étant de dire les sociétés, les gens s'engagent pour l'environnement. Chaque personne doit être capable de faire dans son jardin, dans sa, ville, dans sa société, ces éléments-là. Et nous, au niveau de la SSPT, on croit à cette action Et aujourd'hui, avec une quinzaine de personnes qui sont venues faire en jeunes, en professionnels, en personnes engagées pour leur pays, le Sénégal, pour euh, la, la, communauté dans laquelle ils vivent, euh, faire ce geste de planter symboliquement un arbre. Et c'est l'espoir qu'on peut avoir dans, dans, dans, les communautés qui vivent au Sénégal aujourd'hui, ces jeunes générations qui euh, seront là pour défendre l'environnement et on sera là pour les aider. Votre rempli, c'est sur combien d'hectares

On peut commencer directement à le remplir. On, vous aurez l'occasion d'aller faire des, des, aussi là-bas pour vous montrer comment ça fonctionne. On remplit les panels au fur et à mesure. C'est une réhabilitation qui est progressive, ce qui permet effectivement d'éviter de devoir tout possible à la nature, aux animaux, et de rendre bien sûr euh, les endroits qu'on exploite. waaw ñu ngi leen di gërëm tàmbali nañ ko ak waa société bi ñuy wax SSPT fi nga xam ne directeur général bi jóge Dakar ñëw tey teewee bisu tey bii ñu ngi nuyu ñëpp doon di rafetlu seen ah, teewaay tey jii ñu ngi fii ci forêt classée wu Thiès ñu ngi fii ci ah, concession minière SSPT tey lu ko waral moom mooy bisu reboisement lan moo waral reboisement bi parce que reboisement bi di ko waral ñaari ponk la pour léegi aussi xool ñun suñu lëkkaloo bi ñu am ak SSPT parce que SSPT mi ngi ci biir forêt classée yu Thiès donc SSPT dafa war a exploiter miinam mais aussi dafa war a xalaat ne forêt la fi la fi fekk donc bu ëllëgee buy dem tamit bàyyi fi forêt moo tax at bu jot ñuy ñëw. di ànd ak ñoom ñuy reboiser partie bu nu bàyyi bu nu bu nu bu nu bu nu pare ñun ñu ñëw xool lan la yan pexe lañ am pour ñu mën a reboiser partie yooyu pour ëllëg ñoom bu fekkee ne lépp jeex na tamit ñu mën a fekk fii ñu fekk ñu fekk fii àll loolu moom mooy benn ponk bu njëkk. waaye gis nañ ne aussi ñu ngi ci li naan euh, changement climatique yéen gis ngeen ne alam bi. Euh, am na am na jafe-jafe lool parce que ñi dëkk Thiès boo gis nañ ne at mu ñot dinañ gis ne mbënd mi daan di sonal te ñi ngi fii ci forêt classée Thiès mais ñi ngi ci plateau bu Thiès parce que aussi plateau bu Thiès bi tamit dafa doon loo xam ne li taxoon tubaab bi euh, defoon ko ay forêt classée pour léegi ñu aar dëkkuwaay yu mel ni Thiès ay pour ak yeneen dëkkuwaay waaye gis nañ ne depuis ay at àll bi néew na doole. ba teex na vraiment liggéey ba mu waroon def bon du man ko moo tax ñun aussi Eaux et ci suñu xarañ ci suñu xalaat ñu ne nañu gën a dooleel àll bi pour léegi wàññi mbënd mi wàññi aussi jafe-jafe yi nit ñi am ci changement climatique yi loolu tax ñu teew fii lëkkaloo ak waa SSPT mais lëkkaloo ak yeneeni euh, société pour léegi ëllëg vraiment nit ñi xam ne ñëpp danoo war a boole suñu doole muy benn pour ñu xeex pour léegi mën mi wàññeeku waaye pour changement climatique bi aussi ñu bañ koo ñu bañ koo yëg lool mais xam na ni képp ku fi nekk ci at ci ay at xam na ne vraiment changement climatique bi ñun ñëpp ñu ngi koy ressentir yëg nañ ko bu baax a baax bon nag service eaux et forêts comme service su nguur la dafay ñëw ànd ak société yi muy privé dafay ñëw ànd ak population yi dafay ñëw ànd ak les collectivités territoriales pour ñu jéem a seet nan la ñuy dekkalaat àll bi ba ëllëg boo yenn jafe-jafe ñu bañ koo am parce que nee développement mais développement bi ni bi gën mooy développement bu sax dàkk développement bu sax dàkk nag dafa war a jël en charge li naan koom-koom jël en charge bëgg euh, bëgg askan wi waaye bañ a fàtte aussi àll bi ne àll bi war nañ koo delloo njukkalam war nañ koo delloo wàllam pour que ëllëg jur gi fi nekkoon àll euh, mala yi fi nekkoon mën fee dellusiwaat ndox mi fi amoon mën fee am mais aussi mën mi wàññeeku ci diwaan yi xam ne yu mel ni Thiès wala Pout ak yeneen looloo tax vraiment ñu lëkkaloo ak SSPT ñu ngi gërëm vraiment seen directeur général den gërëm bu baax parce que bi ñu lëkkaloo ñoom ba léegi wax dëgg yàlla ñoom sax bu ñu toogee ñoom ñoo naan ah waxtu yu jot na de ñëw leen ñu ñu évaluer ñaata leen war a reboiser kooku koy def nga xam ne kooku mi ngi respecté engagement yi xam ne jël nu ko ak nguur ji ñu ngi leen gërëm di sant loolu la moom moo tax mooy suñu teewaay tey te defe naa ne ay at aussi dinañ ñëwaat fii ak yéen ñu évaluer li ñu fi defoon comme ça ñu xool aussi liggéey bi nan la jëme kanam pour léegi aussi ñëm ñëpp yeneen sociétés yi xam ne am nañu suuf yu yaatu ñu mën a roy ci SSPT pour que ëllëg vraiment du am benn jafe ñu ngi leen gërëm den sant société toll ci biir Thiès maanaam ñi lay di sollicité. voilà société yi euh, xëy na tey jii dañu wax SSPT mais ñaa am na ñaari semaine déjà reboisé nañu ak waa Sodevit fii ci Bandia aussi euh, ñiy def zircon bi fële ci euh, Diogo ñoom aussi at bu nekk dañu am programme ak ñoom donc même carrières yi dañu am programme ak ñoom pour at bu at bu jot ñu am lu ñu def xëy na carrière soo fekkee dix hectares dina tuuti waaye tuuti dañuy seet ñu aussi nan la ñu mën a dugalee garab yi ci biir carrière yi ci biir société ci minières yi pour que aussi ñoom tamit engagement yi ñu jëloon parce que foore leen fekkoon engagement yi ñu jëloon ñu mën ko respecté ñun aussi ñu mën a wàccoo ak sunu liggéey bi xam ne moom lañu nguur gi sant vis-à-vis des sociétés mais vis-à-vis aussi des collectivités locales. ñaata garab ngeen fas yéene jëmbat fii. tey ñu ngi fas jëm na euh, ñetti junni garab. tey mais at bu jot dafa am programme boo xam ne dañ koy dañ koy tënk ak ñoom mois de mai ñu tënk euh, euh, euh, programme bi comme ça bu nawet xam nga nawet moo tardé sax moom moo tax buñ ko programme woon depuis août programme woon def lii mais nawet bi tardé moom moo tax ñu ñëw ba mois de septembre. mais incha allah at bu jot di ngeen dégg ne wala dina leen invité waat ci lu mel nii pour wan leen ne liggéey bi mi ngi mi ngi jëm kanam te aussi bu bu ko évaluer di ko di ko xayma tamit aussi di ngeen ko mën a yëg comme ça ngeen xam liggéey bi fi am du doon mine rek exploitation mais aussi reboisement aussi am na fi wàll am na fi doole ñu ngi leen gërëm leen sant. ñëw Boubacar Sidibé ancien sous-préfet bu def lu mot euh, ëpp na fanweeri at ci administration territoriale et locale jël retraite ñëw sanc Pout nekk tey consultant en formation. Euh, de, en décentralisation et développement territorial. Professeur à l'université de Bambey, à l'Institut africain de développement de Thiès, où je suis responsable de la filière décentralisation et développement territorial. et nekk nag tamit conseiller technique gu maire Tafa Sarr bu Pout mu demandé ma xam ngeen ne jamono yi ñu toll politiciens yi amatuñu jot. xam ngeen lu tax duma ko fi wax parce que du ma politique wante ñàkk jotam boobu moo tax mu ñaan ma ne man ma ñëw taxawal ko fii teewal ko fi muy mbëgte bu mag a mag a mag si man parce que dama seede diggante SSPT ak commune Pout muy société bu nga xam ne bii lu ñuy wax RSE di responsabilité sociétale d'entreprise nga xam ne dafa tegu si mbaggu entreprise du Sénégal yëpp ma ne leen si sama biir liggéey wër naa Sénégal yëpp du nord au sud d'est en ouest gisaguma société bu mel nii ñëw dugg si biir population locale bi di leen jàppale di leen taxaw di leen dimbali muy seede bu nga xam ne maire dafa ne mu ñëw seede ko fii parce que lu ñu daan def ñoom dañ ko daan def si sutura di ko def si sutura ñëw di ñu dimbali duñu jàppale jox nañ ñu ba jox ñu fourniture de bureau si lañu ñu ñuy ñëw di ñu jox jox ñu di di ñu jàppale si fourniture scolaire nga xam ne état bi at bu nekk si fonds de dotation de la décentralisation dafa am lu mu ñuy lu mu ñuy jox jox pour fourniture scolaire pour éducation nationale du tere ñoom ñu ñëw dolli si loolu état bi di ñu jox ñu gën a jox école yi seen jumtukaay jox nañu commune de Pout matériel pour santé maternité pour tey su amee ay lal yu doy ñoom ñi ñoo tax lal yu doy waxuma lal kese bu ñu jël rek yenn ko weñ ba nañu teg ko mais lal bu bu ñu équipé bés bu ñu ko joxee dañu dem installé ko immédiatement malade yi commencé si tëdd parce que dafa ànd ak matlaam ànd ak darabam ànd ak table de chevet société bu mel noonu nag su fekkee ne dafa ñëw di lënkoog ñun lu mat fukki at tey jii ñu ñëw ñoom ñu ko daan def ci sutura direction bu bees bi ñëw ubbi bunt bi daal di ne déedéet li may def askan wi war na ko xam nation bi war na ko yég kon dañuy yëgle tey maire bëgg ne ma kon yow jógal nga dem te soo demee nga yëkkati suma kàddu sa kaw directeur dégg ko nation bi dégg ko juumuñu parce que organe de presse suñ fi fekk yi mu takkute doy mot nañu wóolu leen doy ngeen ñu si ne di ngeen relayer information bi ba Sénégal gi yëpp xam ne am na société bu tudd SSPT nekk fii si diwaanu Thiès jege pour lool te loxoom jegewul si askan wi. lëkkaloo ak eaux et forêt lu euh, la ñu war a yokk lu ñu war a wàññi. si diggante euh, commune Pout ak eaux et forêt du dara lu dul partenariat bu sax eaux et forêt service su état bi la donc service auxiliaire commune bi la donc commune bépp bu muy mun a doon du doon Pout rek mais commune Sénégal yëpp dañu si war a wéeru. jàppanteeg ñoom di def ay reboisement urbain di créer ay bois puisque l'environnement est une compétence transférée en même temps que la gestion des ressources naturelles te loolu moom mooy cëru eaux et kon maire bu nga xam ne bi lëkkoowul ak ñoom dafa daal di juum ñun nag juumuñu ñu ngi def relation bu baax bu rafet ak ñoom ah su fekkee ne tamit Euh, Pout xam ngeen ko dëkku garab la maire bi taxaw na si chef de service bu ngeen fa am bi mon colonel vraiment si personnel auxiliaire u maire yi la suñu xarit la suñu conseiller technique la conseiller technique u maire sànq maa ngi waxtaan ak capitaine euh, madame Diakhaté ah di ko wax ne ko bëgg naa nga ñëw jàppale kooku seen ndaw boobu nekk fa pour ngeen mën a ñëw sensibiliser les élus puisque élus yi dañu war dañ leen war di sensibiliser man duma élu je suis un fonctionnaire un cadre au cadre de l'administration donc xam naa lan mooy taxawaayu eaux et xam naa lan mooy njëriñu eaux et mais il n'est pas dit que ne chaque maire xam na ko parce que le maire yow la man la maire boobu fu ma jaar ñun technicien cadre de l' administration fu ñu jaar maire bi jaaru fa donc te ñun tamit nekk seen conseil technique ah mënuñu xam lépp donc monsieur le colonel madame Diakhaté ak seen i personnel yëpp bés ni ki tey si turu maire de Pout maa ngi leen di nommer conseiller technique du maire de Pout en matière d' environnement et de reboisement faune et forêt. merci beaucoup suma tur Lamine Diouf. maay service chef de service régional des mines et la géologie de de Thiès. tey ok tey ñu ngi rafetlu journée tey bi euh, journée boo xam ne waa SSPT ñoo ko initié en relation avec le service des eaux et pour planter ay arbres planter arbres yooyu nag dañ ciy kontaan ñun ministère des mines parce que ñëpp xam na ni. exploitation minière bi indi ay jafe-jafe ci environnement bi jafe-jafe yoo xam ne mun nañ ko natt ci affaire euh, poussière bu muy génnee également ay zones herbacées yoo xam ne dañ koy dindi aujourd'hui SSPT ko lëkkaloo ak waa Eaux et Forêts pour def ay reboisement reboisement boobu dina tax ñu régénérer nature bi dina tax également ay euh, euh, dëkk kii bi euh, fu ñu exploité gën a rafet neex a gis dina également permettre poussière buy yëkkitu ñu mun ko rabaisser mun ko wàññi bu baax a baax loolu moo tax suñu ministère bi ministère des mines de la géologie et au nom du ministre madame le ministre dañoo kontaan di remercier Eaux et Forêts ak SSPT yoo xam ne ñoo am xalaat boobu def ko tey parce que loolu moo cadré ci vision ministère bi ministère bi dafa bëgg exploitation minière boo xam ne dañ koy wax exploitation minière responsable qui permet de préserver l'environnement loolu moo tax ma ñëw bu ñu may invité ma ñëw taxawal fii ministère des mines et de la géologie. Euh, euh, kii reboisement bi am na solo wante euh, yaakaar naa ni yéen ngi nekkoon nag entreprise yi. Mhm. ci dellu nag di defaraat maanaam li nga xam ne lii moom mooy terrain bi ba ñu mën koo jëfandikoo. loolu fan la toll. loolu ñoom bu ngeen ko gisee fii waa SSP SSPT commencé nañ ko mais loolu tamit dañ ko ñaax yeneen entreprise yi fi liggéey yëpp dans la région donc fii tey aujourd'hui euh, SSPT def na ko wane ko àdduna bi yëpp ñu koy gis mais am na ñeneen yoo xamante tamit ñu ngi koy def yoo xamante defuñu ko pour nit ñi ko gis donc euh, ministère des mines euh, dafa bëgg en fait mu am exploitation boo xamante ne day méngoo ak jamono méngoo ak jamono mooy lan day nekk exploitation boo xam ne day préserver environnement bi. monsieur Diouf si région bi toujours dañuy wax problème ñàkk kaaraange dans les mines la zone de Ngoundiane ngeen di def pour wàññi phénomène yooyu. effectivement xam nga exploitation des mines dafa nekk loo xamante ne dafa day indi ay jafe-jafe léeg-léeg day mel ni ay accident accident du ñàkk. mais accident bu amee également dañuy def suñu mission de contrôle xool accident bi lan moo ko waral des et après ñu def suñu analyse bind rapport envoyé société bi pour que mu jël ay mesures pour que yu accident yu mel noonu bañ a am. restauration ce que quelle euh, euh, euh, actuellement am na dañuy wax ñaari kaddu ah. am na lu ñuy naan restauration progressive comme Serpion nu mu ko waxee léegi yoo xam ne dañoo am ay surfaces yu yaatu yoo xam ne dañuy exploité donc mun nañ bu ñu exploité panneau ñëw reboiser ko passer à l'autre panneau mais am na exploitation yoo xam ne loolu munoo ko def parce que par exemple dans le cadre des carrières carrière boo xam ne di hectares la munoo di exploiter en même temps di suul da mun a exploiter ba pare après xool naka lañ koy suulee naka lañ koy defaraatee pour que en fait euh, population mun ci jëriñoo parce que en fait réhabilitation mooy lan réhabilitation mooy loo xamante ne exploitation bu jeexee ñi mun a def loo xamante ne nit yi mun nañ ci liggéey. donc par exemple mun nañu def une euh, carrière boo xam ne dañuy defaat reprofilage euh, carrière bi def ko genre bassin de rétention de telle en sorte que euh, animaux yi mun a ñëw pour di fa naan mun nañ ko transformer également comme ça se fait également à Tchiki avec une société de la place dafa gas ba pare def ko pisciculture population yu nekk foofu di ñëw di fa napp loolu yëpp mun na nekk cadre réhabilitation donc globalement dans la région il y a des initiatives par rapport à ça Bon, je m'appelle lieutenant-colonel Biram Dien, inspecteur régional des eaux et forêts de Thiès. Euh, avant de démarrer, tout d'abord, nous allons magnifier donc, euh, le partenariat qui lie la SSPT et le service régional des eaux et forêts. Et depuis donc, euh, un certain nombre d'années, on est en vraiment de cheminer ensemble pour d'une part une bonne exploitation des mines, mais aussi en prenant en charge la dimension environnementale. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt classée de Thiès et plus précisément dans la euh, concession minière donc, de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès pour une opération de reboisement. Cette opération de reboisement entre d'une part dans le cadre donc, du partenariat qui, nous, qui lie donc le, la SSPT et le service régional des eaux et Donc ce partenariat qui date donc euh, de, de plus de 5 ans vise des actions assez importantes. Mais l'une de ces actions, c'est la réhabilitation donc, des sites. Cette réhabilitation donc euh, a démarré depuis euh, cinq ans et on va on peut se le dire la meilleure formule de réhabilitation c'est une réhabilitation progressive donc avec la société nous sommes tombés d'accord sur le fait que après une exploitation donc d'un panneau que ce panneau soit libéré soit remblayé et que le service des eaux et forêts suit pour reboiser Et cela va permettre de manière progressive donc d'avancer, donc de permettre à la société de continuer son exploitation, mais aussi de permettre aux services des eaux et forêts de gérer, de donc l'environnement. Et ceci entre dans le cadre d'un développement durable. Parce que quand parle de développement durable, on, il peut s'articuler sur trois dimensions. Il y la dimension économique, il y la dimension sociale, mais il ne faut pas oublier la dimension environnementale. Et là, il faut se le dire, certes, la société gère bien la dimension économique, gère bien, comme l'a si bien dit euh, le représentant de M. le maire de Pou, la dimension sociale, mais aussi nous prête une écoute attentive donc aux spécialistes que nous sommes pour prendre en charge la dimension, la dimension environnementale. Et là, nous les remercions vivement. Et je peux dire que ce pas uniquement la société qui est en train de faire ce travail. Au niveau de la région, il y a d'autres sociétés, sociétés qui ont donc certaines concessions minières qui sont en train de travailler avec nous dans le cadre donc de la réhabilitation progressive donc des sites exploités. Et là, d'autre part, le service aussi, euh, cette, euh, cette opération entre dans le cadre aussi donc de, de, des activités de, de changement climatique, donc des activités d'atténuation en matière relative au changement climatique. Vous le connaissez, vous le connaissez tous, les populations sont en, on, on, est en train de vivre les effets donc, de ces changements climatiques. Et là, il faut se le dire, le service vise plutôt donc, à améliorer le taux de boisement. Parce qu'on se dit qu'on est devant donc, un écosystème forestier. Et cet écosystème doit jouer ses fonctions primordiales. Et la fonction principale pour nous, ici au niveau de ce, de ce plateau de Thiès, c'est donc euh, une fonction de régulation. Une fonction de régulation parce que vous n'ignorez pas, comme l'a si bien dit monsieur Diouf, le régional donc, des mines, les arbres permettent donc au moins de capter donc, les poussières. Les arbres aussi permettent donc euh, euh donc, euh, de, euh, de l'oxygène pour la vie donc, des populations. Mais aussi, ces arts permettent aussi de réguler, c'est-à-dire de euh, privilégier l'infiltration au détriment du ruissellement. Parce que vous n'ignorez pas que nous sommes ici au niveau de la ville de Thiès. De manière récurrente, on est en train donc de vivre des inondations. Et si on permet donc de renforcer le, euh, le taux de boisement, au niveau de ce plateau, on va faire jouer à cet écosystème un une fonction très importante, c'est la fonction de régulation pour diminuer, pour atténuer donc les inondations récurrentes que la ville de Thiès en train de connaître. Bon, euh, aujourd'hui, on a programmé 3000 plans aujourd'hui. Et là, il faut le dire, chaque année, après exploitation, les responsables de la société invitent le service des eaux et forêts à évaluer la superficie devant être reboisée pendant l'hivernage. Donc toujours au mois de mai, déjà on a le programme donc, de, de, de, de l'année. Cette année, on va reboiser euh, 3000, 3000 plants. Donc on va faire un regarni, c'est-à-dire euh, au niveau donc, de, la, de la partie qui a été reboisée l'année dernière. on va continuer aussi les aménagements au niveau donc de la société. Donc c'est ça global. De, de, la depuis ans Depuis ans, bon, je dis globalement, on reboise donc en moyenne euh, hectares par an pour donc ce qui est libéré par donc, euh, euh, la société. Et ensuite, on fait des, des reboisements d'axes routiers, comme vous le voyez. D'or, on a reboisé. Et puis au fur à mesure, il faut que, comme on le dit, il faut reboiser au niveau même donc de, de cette enceinte où nous sommes. Monsieur, monsieur le colonel responsable des eaux et forêts de la région ou du département, monsieur les techniciens cadres administratifs et de sécurité de la société, je suis heureux aujourd'hui de représenter Moustapha Sarr, le maire de la commune de Poutre, retenus ailleurs par ses nombreuses obligations politiques, administratives et familiales. Heureux, j'ai dit, parce que je suis l'un des témoins de l'institution municipale de Pout, témoin de la naissance du partenariat de longue date qui a toujours existé entre cette société et la commune de poute où j'ai été affecté depuis 2003. Donc, c'est pour dire que j'ai bien suivi le partenariat entre la commune de Poutre. Je l'ai même un peu pouponné, <laughs> je l'ai un peu initié et j'ai participé également à son implantation et à sa mise en forme. Euh, le maire est heureux d'être là aujourd'hui par ma personne. Et il m'a désigné spontanément par le fait de ce que je viens de dire, que je suis l'un des témoins du partenariat qui existe entre cette société et la commune. Et il m'a demandé d'insister et mais surtout de rendre hommage, un vibrant hommage à votre société. Vous êtes en train de révolutionner la RSE la responsabilité sociétale d'entreprise. Vous n'avez pas dit responsabilité sociale, mais c'est une responsabilité sociétale que vous êtes en train de perpétuer dans la région. Et je souhaite que ça soit une tache d'huile au niveau de la nation, au niveau de notre pays. Ce n'est pas euh, la première région où j'ai servi en tant que fonctionnaire. C'est la dernière puisque je suis à la retraite. Et vous aviez toujours fait de la RSE, monsieur le directeur général. Mais in vitro. In vitro, RSE in vitro. Ils faisaient tout de façon discrète. Nous, à la mairie, ils nous ont aidés en fourniture de bureaux. Chaque année, ils ont dépassé ce niveau. Fourniture scolaire, ils ont dépassé ce niveau. Et à chaque niveau dépassé, ça devient un anneau qui vient s'ajouter à une chaîne de solidarité qu'il perpétue. Il y a une semaine, nous avons réceptionné, monsieur le directeur, le lot d'équipements sportifs que vous avez offert à la commune de Poutre pour la jeunesse de Poutre. Et cela ne vous empêche pas toujours, au-delà de cette assistance que vous faites au niveau de l'institution, d'aider en même temps quelques ASC de la ville. Nous en sommes conscients, nous l'avons relevé. Euh, vous avez agi également en matériel, en équipement sanitaire. Vous avez offert à la maternité de Bignona des lits d'hospitalisation équipés en matelas et en drap, en table de chevet. Bravo. La mairie de Pout, la commune de Pout vous tire le chapeau, vous remercie. Si le maire m'a demandé rendre hommage, c'est parce qu'ils savaient que vous êtes sortis du vitro pour faire tout de façon populaire. C'est dommage, l'année prochaine, on va inviter l'ensemble de la population de Pout pour qu'elle soit témoin. Recevez les remerciements les plus sincères, non pas seulement des élus locaux, mais de l'ensemble des populations et de toutes les couches de population. Vous savez mieux que moi toutes les couches que vous, que vous aidez quotidiennement annuellement mensuellement merci merci merci encore pour la RTS